ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am eh, ci tey jii ñu def ko bisub tuubal suñu borom balontey ak sàkk sarax jàng alquran mbooloo mi macha allahu fii ci Touba tàmbalee nañ ko ci jumaa ji nii ngeen ko gisee ci soo ba léegi mbooloom mi ngi ñëw biir jumaa ji fees na sàmmonte nañ it ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi digle woon muy toogaay yi ñu di ko yaatal te takk ay masque balaa kenn duggit mu jëfandikoo mesures yi set yi muy laal ndox ak laal ci sel yi loolu suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ci taxaw bi muy muxaddamatul xidma ñi ngi ciy taxaw bunt bu nekk def nañ fa ay jumtukaay mbooloo mi macha allahu biir jumaa ji fees na gis ngeen yokk yi tamit mi ngi fees ba parisol yi yu ci bari tàmbali nañ ko firi kilifa yi tamit ñëw nañu noonu it lañ ñu waxe ne ci biir dëkk bi ñu ngi ko ci yaatal ci jàkka yi ak jumaa yi waaye ci biir réew mi kër sëñ Tuubaa yi ak daayira yi ba ci bitim réew ba ci suñu mbokki jullit yi sax euh, yëgaloon nañ leen ko sëriñ bi sàkkoon ñu ànd ceeg ñoom euh, ñu bari fa waxoon nañ ne façon nañ ko yaakaar nañ ne feek ñuy dem buñ sëlmalee tisbaar dinañ gën a am information yi waaye daal li am solo mooy mbooloo mi moom wuyu si nañ ci ni ko sëriñ bi wootee woon eh, am yaakaar bu baax nag sëriñ bi waxoon ne nañ ci jiital fas tolluwaay yii nga xam ne moo nekk ci réew mi suñu borom saafara ko muy mbas mi waaye tamit nawet bi mu ubbi ko ci jàmm tàggale ko ci jàmm teñ muurloo ko teñ ñaanal ko ñaanal kilifay diine yëpp ñaanal jullit yëpp rek ci àddina bi eh, jàmm akuk dal kon daal loolu mooy tënk bi ci waxtu wi ñu toll bu ñu sëlmalee nag sëñ Mamor dina jàng xutba bi euh, xatmu bi incha allah su boobaa ñu def tënk bu mujj ba jërëjeen jëf Cheikh Madou Mountakha ñëw ngi lay nuyu di la jottali nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Madou Fadal ak sëñ Basiiru sëñ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ak ñi ñu àndal ñëpp ak waa muqaddamatul xidma ak mboolem di aju ci jumaa ji mboolem ñu ko daan lime ak sëriñ Hamsu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit bi moom sëriñ Soxayb noo ngi lay nuyu yow sëriñ bu tedd bi di la xamal ni na ko diglee woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kàttan ak àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga digaloon def na ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga fa seen daara ak seeni jumaa waaye ñu ci baree bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñi yor liggéey bi xamal leen ni na ko diglee ñoo ngi koy defe foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na fi bu dee wàllu xasaayit itam sëriñ xam sa defe na ko nanga ko diglee woon mboolem kuréel xasaayit yi digal ni leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bare def def ko ci ndigalul sëriñ kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ngi nu ko digale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mii ñu nekk fi wetam la la ci taalibe yépp fasal njabootu sëñ Touba bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yàlla na la ko yàlla defal nu fekkee nun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu sëriñ Touba gépp muy bokk jullit yépp la nga ci fasal ci sa xol te ñëpp ñu xam ko yal na la yal na yal na nu ko yàlla defal ba ba mu ko weesoo njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga ñàkk ñoo digal ñu yàgg jëfe seen digal tiir bu yàgg yàgg ci barkeb Sëriñ Tuubaa noo sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu